ci décision CEDEAO bi par rapport ak euh, affaire xalifa bi. ban waaw comme que Sénégal CEDEAO wala bokk. Mhm. Hmm? Mhm. dafa mel ne rek équipe bu nawetaan bu bokk ODCAV. dafa am loi yu lay tënk. Mhm. loi yooyu ODCAV tënk. boo ko d'accordé ba bokk ci. bu dara xewee sa dëkk. waa ODCAV ne la. lii ak lii ak lii ni nga ko doxalee ci nangam ak nangam ci ASC juboo doxul teg la ay daan war nga nangu daan yooyu mhm. noonu kese